ko jiitu li ko jiitu mooy euh, Ousmane yàlla daf ko dimbale dimbale bu ko yàlla dimbale mooy ba mu ne tëll parti bi ne tëll maanaam dañ daan def politicien bu ne tëll rek bu njëkk li mu njëkk indi mooy këru diine gi la far ñi gëm këru diine ko ànd ak moom ci mbooloo moom mi commencé waale su demee ba ci biir na commencé defar ay ay ay kàddoom mooy ñëpp yem ñëpp a nangam Ousmane daf ne tëll lim njëkk a wane mooy képp ku ngeen dégg muy saaga bokkul ci man beneen maa ñëw kër sëriñ si mukk di fi indi politique kon teel naa génn sëriñ si ci politique teg fee pour lan parce que gis na ne lépp lu yàqu dañ koy bëgg a jël mottalee ko sëriñ si moom mu teel a arrêté loolu mm-hmm. yaa ngi dégg biñ demee ba ci biir booy xool ku mel ni Cheikh Yérim ku mel ni nangam ba Ousmane di présenté livre bi li mu ko jëkk laaj ay affaire sa jabar yi dañuy muuroog maanaam laaj yoo xam ne du njëriñu Sénégal njëriñu doona personnel bopp nit ki la nga koy laaj nit ki te dafa bind livre boo xam ne njëriñu àdduna bi la nga koy laaj loo xam ne njëriñu boppam la kon xam nga fa la gàtt xam-xam yem mais pour wax la ne la loolu yëpp ba mu ko génnee ci langue politique bi ba pare taxul ñu bàyyi ko indiwaat nañ ah, dem di dem di dem bañ na ah salafiste la yaa ngi dégg Robert la terroriste la indi ay wax yu gën a ñaaw te ko ci kawam muy muñ ci loolu mais nag kon am na foo xam ne bu ñu demee ba yegg fa nag moom responsabilité am wàccu na moom Ousmane parce que lam waroon a wax ak kër sëriñ ci def na ko lam waroon a wax ak sénégalais yi def na ko moom taxaw na ci digg bi neutre te kenn mësul gis Ousmane Sonko jànni benn kilifa diine benn baat kenn mësul gis mu doxee benn doxinu politicien ni politiciens yi doxee ci kër diine yi fépp fu mu dem li muy njëkk a wax mooy waxu waxuma fi lu may indi ci politique lu may may mbool lu may may naam damaa lépp lu may yàllay jox su ma ko war a a jox gën a yeyoo man loolu maanaam pas de responsabilité boo xam ne am nañ ko ci benn côté. <laughs> mooy lan. mooy maanaam réew am na foo waxee nit ki ci suuf déggu la waxal ci kaw ñëpp xam ne wax nga parce que nag man Cheikh Niass kenn ma jaay jël sama gafaka lekk ko pare ñëwaat jël sama njëg di ko bokk ak man du ma ko nangul benn politicien ak comment c'est-à-dire mooy lan cest à bëgg a am <laughs> man biir na ma ne am na kilifa yoo xam ne ñu ngi wax ak njiitu réew mi pour jàmm del si réew mi parce que ñoom amuñ fu gën réew mi te tey politiciens yi ñi ci ëpp ñi ngi passeport diplomate ñu ngi ñaar national te ñu ngi nangam bu coow amee dañuy jël léegi avion jet privé dem comme te même ku ci nekk bitim réew di faju ji da nga naan am fii ak kii président Sénégal lu fa xajit day dem France dëkk ji fa su demee ba nga xam ne nii maanaam dem na ba réew mi commencé ko óolu ci lay dawaat ñëw ci réew mi kon bokkul ak ki nga xam ne amul lu dul réew mi gis nga nag mënuñ buñ maanaam man li ma li ma d'accord mooy sëñ bi nañ waxante dëgg te bañ a jaayante parce que mënuma man Cheikh Niass man ne kilifa kilifa laa parce que man avant tout d' damay waxee sama côté man mhm. bala ñu naan waa Pastef yi nangam waxeewu ma ci côté Pastef waxeewu ma ci côté kenn sama côté responsabilité nekk nekk sëriñ ci côté bi may waxee nekk sët ci maam xalifa xalifa mhm. Niass mooy jur alaaji Babacar mu nekk deuxième xalifaam mhm. alaaji Babacar moom moom euh, jaaga sëñ Saliou moom xel xom ñu nekk benn xarit sama maam doon bay nu sëñ Saliou di bayee su bayaan ba pare état moo ko daan jënd si léegi nag maam moo mu jur Sidi Niass Sidi jur ma man man kon su ma waxee ci kër diine war naa wax su ma waxul war naa wax li ma war a wax mooy man ma nit ki ñëw jébbalu ci man gëm ma jox ma ne ma jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira ci biir jox boppam gi àdduna ak alaaxira gi bu ziyaare amee taalibe bi ñëw ma nekk ndeyam nekk baayam mu summeeku di ma tarbiyu di loo ko wax mu def sol dal tànk naaj bu tàng yoo xam ne man sëriñ bi ñi mooma cee dox sama njaboot yi ku ñu dox ma ne demal nga soli dàll ñoom ñu retourné du ko yëg mooy lan moo tax duñ ko yëg waaye du maam yow yow man na ma ne du sama yëg-yëgu bopp waaye yëg-yëg yàlla rof ci ñoom ñooy tax mënuñoo yëg benn benn tàngoor <laughs> ñu retourné bu ma amee gàmm ñooy defaat noonu su ma amee màggal ñoo defaat noonu su ma amee lu neex ñooy ñëw su ma amee lu naqarit ñoo ciy jir defal ma ba ma fàtte ko defal gi mooy lan mooy boo tourné lépp loolu nar wax ñu ñëw def ko sa njaboot gaa ngi seen climatiseur tëdd ñii ñu ngi lijjanti seen i business ñii ñu ngi ci seeni tool waaye ñoom fàtt nañ lépp ñëw ci yow waa léegi nag ñooñu suñ demee ba nga xam ne yàlla dogal na jël nattu teg nattu examen <laughs> mooy nattu teg parce que daf ne la dénk naa la sama bopp àdduna dénkal sama bopp àdd àllaaxira léegi nag ñaa benn buur kese moo am benn buur boobu moo xottil mboolem mi buur léegi nag yàlla wàcce benn buur fii ci réew mi ñu wax Sénégal mu mu fitna am ci réew mi nga war a mën a wax ak moom yow kilifa gi wax ak moom est ce que bu ëllëg yomal xiyaamee bu taalibe bi ñëwaat sukk ne la naan sama bopp àllaaxira yu sëriñ bu roqaat sa bopp ne ah comme man mënu wax ak njiitu réew mi fii ci Sénégal est ëllëg yomal xiyaam man danaa mën a wax ak yàlla mi nga xam ne moo gën a kawe kii nii te gën koy ñàng fuuf te gën bu gaaw rek maanaam problème am na ma réglé ko fii ah man bu ëllëgee boo ne ma boo ne ma boo ne ma ñeme naa jàkkaarloog sa borom. Mm-hmm. ramm la ma mën koo gëm parce que jàkkaarloo nga ak maanaam nit. Mm-hmm. wax wax ak moom nit koo xam ne nag ñi ñemee jàkkaarloog moom wax ko dëgg foofu laa gisee sama analyse bu ndaw. kon am nañ ci pas de responsabilité pour wax ak njiitu réew mi jàmbu dellu si. bi ñu gis ci réseaux sociaux yi kilifa wax ñu ko sax est-ce que loolu it na dem ba tax kilifa bu bëggee wax dina. sàmm wax xam nga man gisaguma ñu ma xam man mm-hmm. ci langue politique yi damay dégg sax ñu bëri di wax gis nga man ñàkkuma fayda nag sëñ bi soo maam xalifa Niass maanaam fu fu mu dëgg dàllam moo ma gënal junne Ousmane Sonko yoo teg te Ousmane bu ñu àndoon mu wala ku ku mel ni Cheikh Thioro wala ku mel ni Imam Dramé wala ku mel ni ñooñu bokk biir mu dab ñu ànd ak Ousmane gis ne mi ngi ñàkkal fayda suñ kilifa diine yi keroog lay dégg dëgg du musta dégg keroog nga keroog lay perte carte Cheikh ak ñu ànd ak man ak ñu ma sës ak ñu ma déglu mais àndewul loolu il faut muy leer parce que gis nga moto bii bi ñu koy taxawal. dafa insister ba sonn moom Ousmane pour lan pour diaboliser yeeg wax yeeg yooyu du nañ politique nañ politique képp ku ci nekk ku ànd ak ànd mais daj ay daara dajee moom loolu dama ko xaw a ragal parce que chaque jour gis ngeen ni ñuy tu maanaam Ousmane nit gënu ko bëgg jàmm su boo ko xamee nag mais boo ko xamul nag lu ne mën nga ko wax mais boo toogoon ak moom cinq minutes rek wax ak moom mhm. da ngay xam ne kii nitu képp du sëggi sax xool nit booy wax dafay sëgg te booy wax ma li gën neex ci njiit mhm. mooy sooy wax danaa ni tekk dox soo ko bëggee convaincre ci wax nga wax xam nga lu njaancoo du ma la weddi de waaye wax ji nag da may firndeel fi nga ko teg ba ma maa mën a convaincre. bu ma koy déggee eh, mu ngi koy wax ci Ousmane Sonko mu ko di ko seedal eh, benn beneen laaj boo xam ne bëgg naa ci ñëw moo di moom tolluwaayam Ousmane Sonko jamono bi daanaka léegi mu def fukki fan ak juróom deful sorti dégguñu. waaw eh, su ma doon Ousmane nag. yéen a ngi déggante wala xam nga muy ay yaa ngi jot ay nouvelle am. yaakaar naa daal mi ngi ci jàmm yaakaar naa mi ci jàmm jàmm mooy umpe. waaye it nekkul ci jàmm si tamit ñaari wax yu man a yu yu xaw a doy waar nag. yaakaar naa bokkul ak nekkul ci jàmm man biir na ma ne nekkul ci jàmm mais yaakaar naa ne mi ngi ci jàmm biir gi ne mooy mooy daf ma leer na duñ ci nekkul ci jàmm mooy Ousmane bu sañoon tout le instant dafay approche ak sénégalais yi tout le instant dafay approche ak ay doomu ndayam mooy sénégalais yi tout le instant xam-xam bi nekk ci moom daf koy wilil si askanu senegal ñuy ñuy ñuy ñu koy xam chaque jour bëgg-bëggam toujours mooy bala ñoo yegg ci fal ak folli yow sénégalais bi d'abord nga xam yaay kan ba pare jàmbaar nañ bañ a naxante ñu waxante dëgg bu njëkk làmb nga fi daan dégg ay musique ay damay dagg béewu sumb ay yëfi caaxaan yooyu rek nga fi daan dégg Ousmane Sonko bi mu ñëwee dem nañ ba nga xam ne ndaw ñi dañ jàppee woon politicien bu njëkk mooy lan mooy yëf yi jot na maanaam natt bi jot na nañ ñëw natt bu ñu teggee teggee ko suñu askan bi mooy lan dañuy ñëw xëpp ñu ay millions ñun yaakaar na ñoo ci nekk jël jël ñii ñu jox leen ay cent mille maire mbootaay lii paa yi lii dugg si kër këru diine yi naxanteeg ñoom nax leen yaakaar na ñoom ñoo ci nekk léegi nag Ousmane dafa dindi loolu ci langue politique dafa ñëw indi mbir mu bees mbir mu mooy lan mooy au lieu que man may investir ci yéen yéen yéen seet ci man parce que man maa leen nar a teel seen ndono maa leen maa leen nar a teel loo xam ne ni soxlawuma ci dara dama koy teg ci siraatal mustaqim yoruma nag sàccu ma mën naa def ni ñëpp di def dem ci bitim réew ay ay ay lobby di ma financé mais nag bu boobaa dañ may conditionné du ma mën a liggéey ni ma bëgg a liggéey sama réew te borom ñaar fukki bëgg na ma liggéeyal ko réew mi mhm. borom milliard bi borom bëgg na ma liggéeyal ko réew mi nangam ak ji dàq fi fen indi dëkk mu bëri nag ñu xam ne dañoo bokk ci système bi te neexuñoo dégg système bi maanaam pàcc boo dem am na fa am na ci sëriñ si am na ci politiciens yi. mbaatu système moom seex yaa ko dese mais Sonko waxatu ko. am na ci wa foofu laa jëm boo déggee ma ne système ah, en na. xam nga parce que système bi. dañuy waxtaan rek non loolu discours bu njëkk la woon moo indi li muy dund li yëpp parce tey ku ne la woon. Mhm. ku ne la woon Barthélémy Dias dina dem ba ba ba ba maanaam ba du bokk ak Ousmane ko xalaat ci politique jamono dana ko laaj ci gannaaw tuuti 6 mois 5 mois 1 an ci gannaaw tuuti doo ko gëm man du ko gëm keneen du ko gëm. mais ki nga xam ne mi ngi ci biir système bi da koy gëm bu boobaa. parce que daf naan da ngeen a xamul politique te Ousmane daf koy wax man du ma politicien politicien mooy kii naxee yaa ngi dégg mooy exemple Dilman rek damay ñëw ñu ñu teg bokk ndey ak mën nañoo xasante ci plateau na ñaaw mais na soxlay faju rek. Mhm. Ousmane nag moom loolu la ne dund ko parce que nag moom benn couleur la yor mooy tout blanc soo ñëwee nar koo taqal mu moytu. soo ñëwee dem fóot sa bopp set ci mel ni moom mu ànd ak yow soo demee ba nga xam ne ànd nga ànd nga ñeneen ji eh, taqatu ñoo bëgg koo gàkkal mu toog ne la bu ma gàkkal toujours moom blanc la blanc la mel. mais loolu nag moo neexut a réglé ci réew mi te loolu li koy réglé. Mhm. mooy ñu am fulla ak fayda dëgg. xam fi ñu xam li ñu maanaam li mu dundoon fii ak euh, li ci gannaaw ba fii nii. Hmm. lim nar a dund fii ak 2024 moo ko gën a métti. lim nar a dund fii ak 2024. Hmm. moo ko nar a métti que bu mu la bett bu mu la bett même nit boo xam ne ku ko jege la sax ñu ne troisième na dem feneen wala nangam bu mu la bett parce que tax bu mu la bett mooy lan mooy mbir mi ku am dignité am responsabilité. xam li nga bëgg xam si nga jëm mhm. doylu xam li nga yéene sénégalais yi wëlis nga koy yéene sa bopp li nga yéene sénégalais yi ëpp li nga yéene sa bopp li nga yéene sa njaboot ëpp li ko yéene sa bopp mhm. mais nag loolu fekk amul jàmm am mu tëyee ci ne maanaam mhm. li ñu ñun mooy suñ li ma sama benn rakk papa wax dina waxtaan mu ma ñun ñun mu ne ma ñun moom ñàkk nañ fayda bañ nax ñu ñun nax na nax nañ ñu di dund nax ñu di dee ñun dee nañ di dox tay nañ suñu àdduna yëpp lekk ko ci benn fan waaye yéen moom na ngeen am fulla ak fayda ba nga xam ne seen àdduna yi doom bu leen ko tayle ñun moom mu ne moom ñun moom dañ leen baalu àq baal leen ñu àq waaye yéen bu ngeen tayle seen àdduna yi doom seen àdduna seen àdduna yi seen yàqu